Euh, jàppe ni itam moom euh, ki nga ko mayoon di euh, Ron Yefet dafa bëggoon tabax ay appartement de luxe vue sur la mer yi nga xam ni itam bëggoon na ko jaay ay prix d'or maanaam ay prix yu yu diis sax Euh, connu pour être proche de l'ancien euh, euh, président euh, Macky Sall ma ni kon nag ki nga xam nekk Rond-Yefet nak amna na euh, mètre carré yu bëri ak ay passer yu bëri yo xam ni itam état bi moo ko jox jaarale ko si gré à gré d'autres biens aussi récupéré nak ko Arfant bokk na si immeuble bi nga xam ni itam moom moo nekk avenue Pasteur euh, numéro 37, euh, le Villa, numéro 6 aussi bu quartier Estelle bu aussi état récupéré na ko waaye itam bokk na aussi immeuble bi nga xam tam mi quartier fan résidence euh, sooy dem su ma ni David Job aussi récupéré nañ ak d'autres biens yo xamni tam état du Sénégal jamono ji récupéré na concrètement avant ma kon li nga xamné que modi l'état euh, et plus que jamais engagé euh, à mettre fin au bradage du littoral Nakandari daal di jàngatee euh, mais évident c'est des points majeurs de PASTEF. les patriotes. sénégalais au pouvoir. Mm on va récupérer tous les biens de l'État. C'est l'un des, pro des, projets majeurs du parti au pouvoir, hmm. PASTEF. Hmm. Aujourd'hui, ils sont passés à l'action. Yagana wax Sénégalais, ñun ñu nangu woon ay seen suuf ñun dinañu récupérer suuf yooyu tegaat ko ci seen loxo bu ñu fekkee dañoo séddale les biens de l'État que ça soit mu donne ay biens matériels wala immatériels hmm nous, nous sommes au pouvoir on va récupérer ces biens là parce que c'est des biens appartenant à l'État du Sénégal et non personne mm. que ce soit Macky Sall que ce soit Kenan ak les biens du Sénégal di de l'État du Sénégal c'est mm. pour l'État du Sénégal c'est pour le peuple mm. benn nit nous ko accaparer wala nous, nous ay contrat yaa contre ay contrat gré gré à gré parce que c'est tes amis Mais jël souffrent, lëm jox au niveau du littoral parce que Macky Sall l'a toujours fait. ay xaritam Macky Sall a tout. gis nga gis nga Fallou Fallou xam Fallou il faut aussi ñu waxante deug. man yag na ko wax fi. Néna la tout au long du littoral le littoral ñi fa tabax yépp c'est des amis à Macky Sall C'est des amis à Macky Sall ñi fa tabax yépp ci le long du littoral c'est des amis à Macky Sall Macky Sall fay jël suuf def un décret jox leen suuf yi na ko Aujourd'hui, je ville de la manipulation des gens. On parlait de l'hôtel Azalai. Mm. Je n'aime pas citer l'hôtel. C'est un Malien, mon comme Un Malien, mon moi, hôtel Bob. Hôtel Bob, mais mais quand m'ont ordonné la construction de l'hôtel <laughs> Azalai. L'hôtel Azalai, amna ñu ko minde. Ouais, mais non la. Amna ñu ko mine lola. Ñom ñi di wax tay Mais amna ñu ko mine. Ñom yépp c'est passé sous l'air de Macky Sall. C'est ça la réalité. Bon demain place buñi né Monaco. Hmm. place buñi buñi Monaco xama ma état dieu na arrêté les la construction djém ko récupérer mais tout ça c'est vendu par Macky Sall Macky Sall moo jaay Macky à ses amis intimes des Isra des Israéliens des des des des Marocains hein? des Marocains des Turcs hein? hein? des des des Qatariens Macky Sall moo jaay. Même des Chinois, des, des, des euh, mais, Macky Sall a vendu tout le littoral. Quand, quand le régime, il y a le régime de Boumouye, hmm. en premier lieu, là, la def, suspendre les travaux au long du littoral, sur le long du littoral. Nous mm. non, eu emploi à élite, non, Ousmane Sonko Lumouarni, non, tu vois. Alors que, nous, nous, nous, nous, manam récupérer sous Soso récupérer moi suuf soosu lañ bëgg récupérer parce que c'est un domaine public maritime le domaine maritime nous ko jaay benn entité sëñ Fallou domaine public maritime nous ko une nga sa xarit intime parce que tu es le président de la république qui s'appelle Macky Sall maintenant oui le mané euh, mais est-ce que mais est-ce que mais est Macky Sall euh, si yan euh, anam la ko concrètement manam euh, c'est si euh, lan c'est lan c'est lan c'est lan leen jotee posé parce que quand on peut dire l'État dafa nekk lu complexe mais qui ñëw rek di def ay décret que tu crois que les nouvelles autorités là échange ah. tu crois que les nouvelles autorités là bu ñu demee ba nangu suuf soso ñoom xamuñu ak dans quelle base Macky Sall la joxee suuf soso pourquoi tu crois que ils sont pas au courant oui ils ont tous les dossiers c'est ils ont tous les dossiers vous nous demandez vous bay récupérer ressources parce que dit ce que entre entre temps voilà quelque part il y a de l'incohérence parce que un domaine maritime public nous n'avons jël nga jox sa ci ay contrat gré à mais regarde l'ancien garde l'ancien garde de pompiers mm. l'ancien garde pompier pompiers, mm. Sy mais immeuble bi fa nek Adowa le pro la société Adowa tabax fa mais il faut regarder comment Macky a donné cet espace là à la société à chaque jour ba wax ko fi yàgg na ko wax fi ba ñu tabax pa ay tabax bu ngand diko les Sénégalais diko ko jaay partout Adowa il faut aller demander comment ils ont acquis comment ils ont acquis comment ils ont acquis euh, adresse l'ancien garde-pompier parce que Adoa c'est des amis à Macky Sall donc Ousmane ils ont beaucoup de travail si ils ont dans l'opération dans un programme de récupération de ces fonciers là ils ont beaucoup beaucoup de travail à faire. parce que Macky Sall a Sénégal ancien gare pompier mu jaay jox ko Adowa Adowa tabax fa di ko di jaay di jaay ay ay ay ay ay appartement hmm. nga dem nga dem nga dem nga dem ci espace yi ba mbuurkat bu Cees kat gis nga nu ñuy séddee ñu ñuy séddee les parcelle la hmm. ay ay ndengleer côté yooyu yëpp la le de la petite cote jaay nañu fépp boo demee mbuur tey boo demee mbuur tey tubaab yi ñoo fa nekk ay sali ay ki ay saumon ay qui yooyu yëpp tubaab yi ñoo fa nekk tubaab yi ñoo fa jënd ba mu jeex tàkk les français sont là-bas moo tax man su ma déggee ay nit yi danaa non nañu dàq français yi ñun ñu jëlee fii français yi armée français nañ ko jëlee fii parce que ils n'ont pas compris. Sonko waa Sonko na n'a pas compris. d'accord je suis d'accord pour ñu jëlee fii armée français mais pour te dire que Macky Sall dafa jox une base au au aux français à Donc, son qu'on n'a pas compris. Il n'y a que des Français là-bas à Sali. Son qu'on n'a pas compris. Son qu'on n'a pas compris. Non, Sonko a compris. j'ai dit que. Son qu'on n'a pas idem. Mais, mais d'où sont qu'on m'a réclamé C'est les Sénégalais qui l'ont réclamé. Fini l'armée française au Sénégal. Il est temps, comme Mali nous l'a fait, il y a un pays qui l'a fait. Sénégal aussi, il faut que nous génifions l'armée française. Hmm moo ma réclamer d'accord, ils ont raison mais nañu réclamer aussi ce qui se passe dans la petite côte. alors sur la petite parce que les titres fonciers les gens qui étrangers comment ça comment des étrangers peuvent venir au Sénégal et bénéficier des titres des titres fonciers boni titres fonciers di quoi sénégalais beaucoup de sociétés qui ont déjà été terrain des sociétés étrangères c'est des sociétés étrangères ñoo installé au Sénégal di fi jaay ay souf alors c'est clair loolu xalaato ko def Mauritanie bi li un étranger de Mauritanie bañu jox la un titre foncier xalaato ko def France dina la wéx a wa euh Taïba Sarr loolu lay xex Sonko nekk euh, du fii mais non la. nga ñëw Sénégal Sonko neexu du fi nga ñëw Sénégal. ñu nga gis ay étrangers. même suñu xarit yi Guinée yi sax. xam suñu xarit yi Guinée hmm. yi. ay meuble yu bëri nag jam ñaajo ñoom ñoo ko tabax. bu yàggee Guinée yi ñi sax ñoo ñuy gën a am baat fii. non avant bu dugg si loolu. non non exemple laa la jox. waaw non bu dugg si exemple laa la jox. bu dugg si loolu avant. ñu am ay titre foncier bay jënd ay terrain jàmbur. c'est mi ngi noonu ay titre foncier. mi ngi noonu avant. loolu euh, yëpp mal gouvernance moo ko waral foofu laa bëgg a jeexale mal gouvernance moo waral loolu. Mm. parce que dans un état sérieux dans un pays sérieux un étranger ne doit pas avoir un titre français au Sénégal dañ la koy louer sur sur 20 ans sur 50 ans sur qui, voilà Bye les donne, bye. Moi, dans un état sérieux un étranger ne doit pas venir au Sénégal Ben joko a un titre français. au nom de quoi. alors c'est clair nom de quoi alors mine ngi exactement par rapport à que euh, bu nu mel euh, ki nga xam que mu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye récupéré woon nañ alors. Nous avons des àddu itam du côté de la régie Nous avons deux